lan mooy liggéey islam ba gannaaw boo nuyoowee. jërë ngeen jëf maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di am mbégte lool feggoo ak yéen ci jotaay bi muy lu taaru lool nekk itam lu lu am solo. ndax aada cosaan moom yaakaar naa ne eh, dañ naan moom la ñuy nàmpalee askan ngir mu xam boppam. Mhm. te xam sa boppit it mooy nga xam sa démb ndax mooy tax nga xam fan ngay teg sa tànk ba xam fi nga mën a jëm jëm jëm ëllëg muy lu am solo ñu ciy woo ñëpp nag ngir ñu delluwaat ci ci lu mel nii ñu xam ne wuute gi ñu wuute. mooy wane taaru Sénégal wuute gi nu wuute mooy wane maanaam ku ci nekk rek war nga am loo soxla ci sa morom ba mun koo dem jëli yokk ko yokk ko ci sa bopp bu baax a baax a baax a baax mm-hmm. di leen jaajëfal bu baax a baax ci loolu laamal ma benn slam ma xool tey ci li nga xamante ne bëgg nga ko wala xew na ma bàyyi la nga dóor benn slam waaw euh, dafa mel ne ñu ngi ci weeru jigéen mm-hmm. kon dañuy sargal jigéen indi slam boo xam ne euh, dañ leen koy duppee <coughs> ma ne bi suñu borom tabaxee àdduna jagleel ko jaami tàmbali ci maam aadama bañ mu tumurankee tax mu indil ko maam awa jëlee ko ci faaram ngir mu doon ki koy wéttali mu bokk ci moom ba noppi doon ki koy mottali mën na yàlla def ci jigéen kerse taar doole ju néew ak yërmande fit ak dëgër mu jagleel ko góor ngir mu doon li mu koy aare kon kuy mettital jigéen yaa ngi gobbi sa sutura ku ko sàmm nag daa xam ne mooy suukaru àdduna ay bu la tegee loxo daa fàtte bépp naqar nekkal ki koy bégloo te bul ko jàppee sagar waloo di ko jooyloo ndax mooy ki lay sagal kon moytul di ko asaaloo ndax yàllaa ko sargal ma ne jigéen mooy sa yaay mooy sa xarit mooy sa doom wala sa soxna ca kër ga mooy feesal koll ya ca tund wa mooy bay tool ya ca gétt ga mooy xaritu malaya fajar mu takk sërëm fees dell ca jaaba bëggul lu dul defar këlëm billaayi moom jàmbaar la mën a jigéen dee su koy ñab-ñabal benn bennal war a naqaral des koy sàmm ormal ak a suturaal def ko ngalam mu def la wurus won ko mbaax mu jox la bànneex te doo rus waaye toroxal ko yow nga des ak torox mu doon sa wéttal et mes Les femmes sont tous les jours victimes de violences conjugales graves, d'excisions, de mariages forcés, de crimes d'honneur, de viols ou même de tueries. C'est avéré. Et vous conviendrez avec moi que ce combat n'est pas les femmes contre les hommes, mais les hommes et les femmes ensemble. Et il s'agit pour nous, pour nous tous, d'être cohérents. Garantir la liberté de la femme veut dire d'accepter extérieurement que celle-ci puisse faire un choix que l'on ou un autre que l'on ne comprend pas. Et la femme est l'ingénieuse du fondement de chaque société. Elle est avant tout une mère, une guide qui mérite d'être idolâtrée. Donc femme, pour de la fortune, ne devrait pas échanger sa dignité, car la dignité inspire la considération et commande le respect. La femme devrait être pour tout homme une source de motivation et non continuellement un moyen de distraction. te wolof nee na jigéen day gàtt tànk gàtt loxo am jëm fulla ak fay fayda bëri kersa ndax nekkaale waru ko mën ne ko jigéen bu ko alal taxee jaay ngoro dina jar waaye dutul jarati ngàllam àdduna kenn defaru ko ci benn fan kon nañu dox ak xel suñu bopp nañ ko sàmm roy ci maafa wàddu wele soxna jaara xamal sa bopp xoolal ci Aline Sitoé Diatta ma ne yàkkamti yàqule yéexantu taxawaale di xulle say waay dem nga ne yogg di xoole ma ne la góor jigéen jàmm ak njëriñ nga suturaal ko sàmm ko yërëm mu def la jàmm salaamaaleykum voilà kon nag euh, gis ngeen ko lii nag mooy euh, li nga xamante ne mooy brassage culturel bi